<clears throat> waaw info rapide info rapide info rapide waay info rapide lii mooy info rapide waaw ah ñaar yu yànj yi tey da dama jot benn message nag ci benn uh, ku baax message bi nag c'est un peu souriant sikkim yi nag dafa xaw wute boroom dafa juum rek dafa waroon ne sikkim bu fees voilà donc suñu yaay maman yi xàmmee leen jomaay sikkim bu fees la am waa sikkim bu fees parce que waa Macky Sall ak waa kër ñàkk jàmm ñooñu duñu laal sikkim ñoom moom déedéet il abandonne ça ñoom lépp lu yàlla bëgg ñoom jegewuñu ko te lépp lu euh, waa France bëgg ñoom ci la ñuy dox te candidat France du am sikkim waaye dafa am euh, audio bu am solo bu ma bëgg sénégalais yi ñu dégloondoo xam nga lu tax ma bëgg ñu déglu audio bi parce que suñu benn frère bu baax ndeysaan docteur Abdourahmane Diouf laa dégg mu indi audio bi te dafa important ñu déglu audio parce que li tax ñu war a déglu audio bi bi euh, ñun lii la ñu doon joy et je pense que li gars yi di wax il vient de goûter he just had a taste of his own medicine maanaam garab bi nga xam ne garabu boppam la moom ñam na ci live bi nag mbir moo ciy lalu waaye bii laa bëgg a tàmbalee parce que dafa am solo Sonko dafa waxoon lii déglu leen bismillah yaay jéggal leen man sama mbir mi yenn saa yi nag mu sant Njaay oh way way way indil ma sama uju ba waay bul ma tooñ yaa ngi may tooñ de ah yaa ngi may tooñ de waaw xara pourquoi encore pourquoi encore ok léegi bàyyi leen ma dindi euh, bluetooth bi parce que bluetooth bi xaw ma lu tax mu bañ waaye dina refuse ok soo bàyyi leen ma indil leen ko directement du 21 ah ah ah déglu leen déglu leen déglu leen déglu docteur Abdourahmane Diouf eh, à à à félicitations au lion au lion de la Teranga. ñu ngi leen di félicité ay jàmbaar ngeen ah, ñu ngi leen di félicité baax waaye dañuy focus ba léegi rek ci ñaar ñii gis ngeen waa ji mooy kii kii mooy kii kii mooy kii kii mooy kii embryon la boo ko xoolee boo ko boolee benn doomu aadama bi lay nekk ndax jikko yi sax ñoo yem ñaar ñi yëpp dañu nekk impôt et domaine dafa am lu bari loo xam ne dañ koy fàttee wax nag kenn musu see sàcc ñoom ñaar kenn musu see luubal dërëm maanaam Bassirou Diomaye fay kenn musu koo gis mu luubal benn dërëm li Ousmane Sonko di incarné lay incarné yàlla dafa def Sonko moo doon campagne nag waaye moom it impôt et domaine la doon liggéeye matul nag atu Sonko yi ndax Sonko ñeent euh, fukki at ak ñeent la fa def Bassirou Diomaye amaan a juróom-ñaari at wala euh, fukk euh, juróom-ñett voilà donc syndicat bi nga xam ne aussi Sonko moo ko jiite woon léegi Bassirou Diomaye Faye moo ko jiite donc Bassirou Diomaye Faye aussi dama bëgg leeral sénégalais yi ne li mu def impôt et domaine yëpp mooy sénégalais yooyu nga xam ne musul luubal dërëm amul benn pikini benn fistin boo xam ne mës na ko luubal ci Sénégal léegi nag balaa may dem ci loolu docteur Abdourahmane Diouf la laa dégg tey muy woote combat muy woote population bu mobilisé wu docteur Abdourahmane Diouf comme ni ko xalifa Sall wootee woon keroog bañ koy jàpp di ko yóbbu moom it euh, fële ci rëbës ba mu woote woon gatsa gatsa nee na d'accordatul léegi gatsa gatsa lay woote léegi docteur Abdourahmane Diouf moom mooy woote pour peuple sénégalais bi nee na yéen ñëpp nañu mobiliser wu docteur Abdourahmane Diouf mooy woote de nee na na ñëpp wu déglu leen ma encore une fois docteur Abdourahmane Diouf nee na que tous les sénégalais se mobilisent pour un combat léegi moom dafa ne woon républicain la waaye je pense que ñëpp a ngi comprendre ndànk-ndànk ne républicain amul Sénégal donc bu ma doon yow docteur vraiment il faut que nga mobiliser troupes yi sa troupes yi ngeen ànd ak Bassirou Diomaye Diogo Faye ndax kooku moom bu jëlee réew mi incha allah képp kuy borom xam-xam ak sa xam-xam fu mu màccal amaana di nga am liggéey incha allahu rabbi te beneen élection bu ñëwee muy locale muy législative ak muy élection bu mu mën a doon comme ces gens là ce n'est pas des dictateurs c'est des personnes ay nit yu dëggu ñuy ragal yàlla amaana ñëpp dinañu bokk ci ay élection te élection yi dina jaar yoon donc docteur Abdourahmane Diouf dama bëgg ñu déglu li mu wax ak li Ousmane Sonko waxoon laataa tey di jot bismillah bienvenue au club xam nga Sénégal lu fi métti mooy ñun li ñuy xeex sénégal yu bëri dañuy toog di seetaan tant que dalul seen kaw du ñu xam ñu lu ñuy xeex lu mu doon. defuma leçon de morale à personne waaye li may ñaan sénégal yi mooy ñun ñëpp nañuy góor góorgóorlu di jàng xeex lu suñu yoon newul su ma nee lu suñu yoon newul nag mooy loo xam ne du suñu intérêt personnel immédiat parce que lu bëree bëri bëri ci Sénégalais yi balaa ñuy mën a yëngu rek mooy la ñuy def ci loraange dal na seen kaw. mais tant que dalul seen kaw les mêmes ñooy nekk di yuuxu di xeex ñoom di Marius Sagna ñoom Ousmane Sonko ñoom mais dafa mel ni li ci bëri du yëngal Sénégalais. quand ils sont venus chercher les communistes je n'ai rien dit parce que je n'étais pas communiste. quand ils ont enfermé les sociodémocrates je parce que je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus arrêter les juifs, Je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juif. Mais quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Ce poème est un bel exemple d'engagement et, résume la philosophie et l'action de Niboller. du question politique am warul am clivage politique société civile ñëpp ci war a jàpp. donc c'est pas comme si on termine un combat seulement des candidats spoliés, c'est le combat de l'opposition pour que ki nga xam ne voilà. merci docteur beral never lii la américain di ne better late than never merci on te remercie ñu ngi lay jaajëfal bu baax docteur parce que lii ngay wax nii docteur lii la ñu doon wax depuis mille neuf cent ajak-jak jusqu'à nos jours man Ousmane li may xeex mooy injustice parce que dama gëm ne injustice bu dalee ci kaw nit nga toog seetaan bu ñu jeexalee ñëpp ci sa kaw la ñuy jëm te bu boobaa doo am koy xeexal koy ku lay xeexle est-ce que comprendre ngeen fi may waxee ñun ñëpp bu ñu toogee seetaan Macky Sall mu faagaagal diw mu pare faagaagal diw mu pare faagaagal diw ñun ñëpp ñu noppi ñu naan diw mooy borom fitna mais bu leen faagaagalee ñoom ñëpp ba pare sa kaw lay dal te bu boobaa yow doo am koy xeexandool parce que jeex ngeen lii laa bëgg Sénégal ay xam ko gis nga tey dañu toll ci moment bu crucial ci histoire du Sénégal moment bu crucial parce que xam ngeen lan moo tax Macky Sall jàppoon waa ji Basirou Diomaye Faye xam ngeen lan moo tax mu jàpp parce que xamoon na ne dina faagaagal président Ousmane Sonko te bu faagaagalee président Ousmane Sonko bëggul ku ko remplacer maanaam bëggul woon Basirou Diomaye fay nekk ci biti parce que xam na ne Pastef esprit la te bu boobaa Diomaye day continuer li nga xam ne moom la Sonko tàmbali woon c'est ça la vérité dama ne encore une fois dama ne encore une fois déglu ma de ngeen déglu ma bu baax dama ne Macky Sall Macky Sall Macky Amadou bi muy jàpp ki tudd Bassirou Diomaye Faye muy waa ji ci kaw booba clochardisation la continuation de la clochardisation de la justice lañ ko jàppee woon léegi justice Sénégal yéen tey boo leen ko bëggee sommariser lan ngeen koy wooye c'est vraiment devenu même clochard c'est pas clochardisé seulement c'est maintenant ils sont devenus des clochards total justice su Sénégal léegi billaay sili bu fëgg jaayee ko gën a yomb léegi buñ la waree atte jëndal siri bu fëgg jaay rek te sol te def taatu neen romb marché Sandaga parce que justice su Sénégal ak taatu neen dox marché Sandaga yem képp siri bu fëgg jaay moo gën a cher justice su Sénégal Sénégal rek moo am justice boo xam ne ay doomeeraam yu mel ni Badio Camara fa te encore une fois dama koy fàttali rek doomu adama yi bàyyi ko xel ndax dige bor la Badio Camara yàgg-yàgg dinañ la suli ndey ci sa bàmmeel taal la man boo ma njëkkee dee sax xale yi dinañ ko bu ma la njëkkee dee sax xale yi dinañ ko def après man bu ma dee boo ma njëkkee dee moom masiba naaru laay dal na la sa bàmmeel fuñ la mën a suul ci àdduna bi ñun dinañ ko ràññee ci bàmmeel yi danañ la dem sulli sa ndey ci bàmmeel ba taal sa ndey foofu ci kaw bàmmeel ba Bassirou Diomaye Faye lii la doon wax maa ngi leen di fàttali encore xam ngeen lan moo taxoon Macky Sall jàpp waa ji parce que Macky Sall bi muy jàpp kii jéem na jàpp kii am entreprise waaye mu jàpp kii toppee ko clochardisation de la justice ñu ubbil ko ay enquête six mois yi bi mu matee ñu xam ne forcé dañ ko war a bàyyi mu génn kaso booba Ousmane Sonko mi ngi ci biir kaso bi ba léegi xam nga lu ñu def ñu indi ay charge banaal yu bees sànni ko ci kawam pour mën a jeexal parce que instruction bi après six mois dañ koy bàyyi mu génn buñ ko defoon flagrant délit buñ ko attee day génn léegi comme instruction bi jeex na ñu créer ay mbir yu bees pour denc fa waa ji fay waa ji jomaay fay mi ngi nii kii Ousmane Sonko ba mu wootee ne meeku tur lu ñu def ñu indi mbiru Adji Sarr dafa am loo xam ne nag am na solo ngeen xam ko Mambay Niang Mambay Niang et j'espère j'espère bien qu'il va continuer à porter plainte comme il le fait toujours parce que aussi on ne peut pas commencer à porter plainte après all of a sudden comme ni américain yi di waxee on arrête à porter plainte parce que lui c'est le chef de tous les mensonges du monde Mambay Niang damay ñëw tuuti foofu ngeen comprendre Mame Mbaye ñun ñëpp am na lu ñu dégluwoon fii ci Mame Mbaye ñun ñëpp nag am na lu ñu déggoon ci Mame Mbaye ñun ñëpp am na lu ñu dégluwoon ci Mame Mbaye am na lu ñu déglu woon de ci Mame Mbaye ndegem xam ngeen ko wala fàtte ngeen ko ci diggante bi am na lu sénégalais yëpp déglu woon ci mbiru Mame Mbaye tey am na vidéo buy circulé de boo xam ne kenn ci ñoom vidéo ba sax defe naa bu ma juumul wàccee nañ ko ci diggante bi mi ngi nii ci Instagram bi laa ko fekkoon waaye sénégalais xarañ ngeen xam naa ñu bari ci yéen indiwaat ngeen ko de toute façon vidéo bi fii la newoon waaye ñu bari dindi nañ ko Euh, ñoom dindi nañ ko gaaw parce que la plupart des temps bu ñu defee jéyee yu mel nii dañuy daw dem indi dem jëli vidéo bi wàccee ko vidéo bi intéressé wu ma woon donc jëluma ko mais kenn ci ñoom moo doon accusé ne Mame Mbaye Niang toxal na ay mbiram yëpp Canada mi ngi waaj a daw dem Canada kenn ci ñoom moo ko waxoon kenn ci ñoom moo ko waxoon de mu ne Mame toxal na ay mbiram yëpp Canada mi ngi toxal xaalisam mi ngi daw parce que dafa bëgg a toxu Canada dinaa am loo xam ne dinaa ko dévoiler loo xam ne defe naa mësaguma koo dévoiler soxnay mambay ñaam bi mu tasal soxnaam bi mu tasal ñëw na fii Amérique ba fi ma dëkk di jéem a jënd ab kër léegi nag am na leneen lu ci topp loo xam ne pour le moment comme maa ngi ci ay information yu sensible maa ngi bëgg a jot li des ci information yi il faut ma xaar loolu ba jot li des ci information yi balaa élection bala campagne di tàmbali mais soxnay Mame Mbaye Niang ba nga xam ne moom ak ñoom ba ñu bàyyantee soxnaam si mu bàyyanteel ñëw na fii nga xam ne ñun fala ñu ne di fi jéem a jëndab kër pour loolu sénégalais yëpp xam ko pour sénégalais yi xam ko moom ñëw na ñun fi ñu dëkk di fi jéem a jëndab kër voilà mi ngi ni Sénégal direct ñu ne Omar Sow taakal sévèrement ma Mbaye Niang effet de révélations mi ngi waaj a daw dem Canada ñu ngi lekkante ci seen biir waaw parce que Mame Mbaye Niang moo leen gën a xam ne Sénégal tey képp ku xam xam na ne Bassirou Diomaye Faye sera le prochain président du senegal gars yi dama leen di ñaan ngeen partager vidéo bi te boo leen partager vidéo bi aussi ngeen déglu ma attentivement attentivement ñoom xam nañu ne ñoom xam nañu ne Bassirou Diomaye Faye incha allahu rabbi bu ci yàlla àndee moom mooy don prochain président du Sénégal dégg naa ci sax ay mais ay nègre ay ay ay nit yu misérable yu ànd ak nguuru Macky Sall gi yu ne ñoom Bassirou Diomaye fay même bu nekkee candidat sax dañuy xaru waxatuma la ak président candidat rek donc candidat la xarooguñu ba léegi y a un problème qui se pose jarul ngeen di xaru parce que yéen seen seen mbir mi mooy ñëw gën a gaaw xaru jarul xaru jarul xaru vous ferez face yéen ñëpp vous ferez face à la loi Macky Sall waxoon na leen ko newoon na leen boo leen dof-dofloo ba gars yi nekk fii candidat nangam ils vont gagner les élections te buñ ko gañee yéen ñëpp ci prison ba ngeen jëm yéen xam ngeen lool c'est pas que am nañu seen jot déedéet waaye yéen la ngeen def ca tooxi dooni ci Sénégal plainte yi leen di xaar ci Sénégal Mame Mbaye ñaa moom Canada sax day féex ci moom parce que je sais que Canada y bokku na de patriotes et je sais que ces patriotes incha allahu rabbi ils feront tout ce qu'ils pourront Amérique moom ñoom xam nañ ne man dama fi nekk dañ ko puub Amérique moom maanaam dañ ko barricade kenn du fi jaar xam nañ fi fii muus du fi naanee ñeex waaye Canada il va essayer waaye Canada patriote yaa nga fa ñu ngi koy xaar gars dama bëgg ngeen xam ne ñoom ñu ngi ci désinformation parce que am na sax vidéo boo xam ne génnee nañ ko pas vidéo sax ay bind ñoom commencé nañ ne ñu jomaay bu nekkee président sax waaw Mamadou maam Diop président assemblée nationale moom mooy ñëw nekk euh, président après jomaay yoon daf koy topp <laughs> eh, ñoo mën a kàcc dañuy fen billaay dañuy fen dañoo jaxle ñoom li ñu def foofu il avoue que jomaay sera le prochain président du Sénégal loolu lañu ñu il avoue que le prochain président du Sénégal il il est nommé Bassirou Diomaye fay loolu moo leen tiital li leen tiital dañu xam ne la prochain président du Sénégal est dénommé Bassirou Diomaye fay damay ñaan responsable u cellule Pastef partout dans le Sénégal ndax ñu jub ngeen gëm yàlla may ñaan responsable Pastef à travers le Sénégal faciliter les moyens de transport pour les jeunes pour ñu dem jëli seen i ay carte d'identité jeunes yu bari ñoo may joytu ñu bari du ñëpp ndax Pastef parti bu digne la ñaankat amul Pastef Pastef ñi fa nekk waa may ma ma waa may ma ma lekk waa eh, lekku ma waay waay maa ngi dee waay jàppale ma waa Tounkara may ma xaalis waa Tounkara xam nañ leen on vous connaît Pastef tous ceux qui sont la c'est des personnes dignes duñu ñaan bu ñuy bëgg a dee it danañu dee ak xiif duñu yelwaan bu ñuy bëgg a dee it danañu dee ak xiif ci ngor lañuy dee danañu sonn bay bërëngu ba xiif di leen rey duñu yuuxu jamais un vrai lion ne pleure pas de la famine il va à la chasse il attrape son prêt il mange bien et il va encore se coucher et attendre un autre jour donc responsable yi nee naa leen dóorkat yi dinañ leen woo waaye aw ma paas waaye jàppale ma waaye jàppale arrêtez avec ça les vraies personnes du Pastef ne demandent rien yan da ngeen defee ne ñun ngeen di nax waaye yéen ñu bari ñi ñi defara ñuy nax tunkara léegi dégg ngeen fi ma génnee tey kon xam ngeen ne seen bopp ngeen di nax ndax man ñu bari ñoo ma yoo hee grand man Pastef laa bëgg dama feebaroon waa grand man Pastef laa bëgg hee grand may ma cinquante mille waa oh, grand man Pastef laa bëgg grand may ma deux cent hee grand Pastef laa bëgg ku am Pastef du ñaan ci ngor lay dee day sonn de dina bërëngu biir bi metti mais yàlla moo koy ñëw en secours parce que moom bu waxul ñi mu dëkkal dëkkandoom yi dinañ xam ne fii metti na te dëkkandoom yi dina am taxawaay buñ ko taxawoo donc ku yaakaar ne nax nga ma sa bopp nax xam naa sam papa dafa daan ne mu ne kala jàppee dof kalay nax kalay nax kala defee ne ma lay nax yow jëlal rek tek ci loxoom yàlla dana la bindal tiyaaba yow parce que yow moom incha allahu rabbi sa yéene mooy dimbali doomu aadama bi mais kalay jéem a nax moom moom dof la moom defe na ne yow la ndax mais par contre daf la defal faveur donc yéen ñiy tappale yëpp arrêté leen waaye s'il vous plaît boo leen may woo ne ma Tunkara may ma cin mille damay jëndi dibi wala Tunkara may ma 5000 damay jëndi boisson waaye sama yaay dafa feebar ñaari tànk yi dagg nañ ko waa ordonnance bi juróom-ñett fukk la waa sama ween yi dañ koy dagg waa sama baatu maam bi dañ koy dagg suba arrêté avec ça te ñu focus ci élection yi responsable de Pastef maa ngi leen di ñaan ngeen dimbali ñii nga xam ne ñoom ñooy jeune Pastef yi soxla transport pour dem jëli seeni ay carte d'identité waxuma leen dóorkat yi dóorkat yi dinañ leen woo waaw jàppaleen ngeen ne leen arrête là-bas mais jeunes yi soxla ndimbal il faut les aider mobiliser leen ay car ci biir car yooyu ngeen dugal fo góor ñi ngeen yóbbu leen ñu jëli seeni ay carte bari na jeunes yoo xam ne bëgg nañu jëli seeni ay carte ñun bëgguñoo dóoree makki Sall un zéro we don't want bëgguñu loolu ñun Macky Sall vingt zéro lañ ko bëgg a dóor vingt zéro on veut bastonner Macky Sall xam nga Macky Sall ñun naka lañ koy dóore Macky Sall quatre-vingt-dix pour cent lañ ko bëgg a bëgguñu dóor Macky Sall ay dóor yu sedd ay door yoo xam ne moom day am trente vingt cinq trente douze déedéet dañu bëgg a Macky Sall bu ñu demee élection bu toogee xool boppam dina ne a ah, <laughs> Amadou <laughs> jël leen seeni sakte daaw yow jaaral Gambie yow jaaral Mauritanie yow jaaral Mali ku ne na nga wuti sa bopp parce que ñii kenn manu leen duma gis nga makki Sall moo leen gën a xam ne mënta gagné ay élection Sénégal il le sait toog fii di layam layame waaw dañuy buure urne yi waaye bu ñu sàccee waaw fuuta waaw nangam yéen man ngeen toog tous les sénégalais la ak seen xam-xam yépp yéen jàng ngeen arab jàng alxuraan jàng français jàng lépp jàng anglais jàng lii lépp yàlla dimbali leen ngeen di ay doomu nit yu set ngeen di ay doom yu set ngeen bàyyi benn doomu xaram bu mel ni Farba Ngom Farba Ngom jàngul jongul nee leen qul huwa allahu sax bu set mënu ko wax kooku moom ngeen di toog ngeen ne Sénégal ñun ñëpp dañuy nelaw dañuy bàyyi dañuy sàcc élection yi ngeen bëgg dugal loolu ci suñu biir xel dugal ko seen xel ne waaw ba ngoom dina sàcc élection yi waaw bu ñëwee waaw voilà doole nangam après vous vous dites méritant de diriger un pays mais vous ne pas de diriger pays si un pays un nulard comme Farba Ngom peut tout manipuler ces Sénégalais nous, on n'a pas droit à des élections. On n'a pas droit à aller chercher nos cartes. Restez chez vous et dormez et buvez de loo loolu mooy dëgg ñun suñu baay yi suñu ndey yi jur ñu fi ñu war a jure ñun ñu liggéey ba accomplir suñu vi à l'étranger ba nit ñi naw ñu doomu aadama yi ñëw ñu partu dans le monde ñu am ingénieurs yi gën a avancé ci àdduna bi ñu am doomu sénégalais yu ëpp jom ci àdduna bi ñu am borom xam-xam yu ëpp xam-xam ci àdduna bi ñu bàyyi benn doomu xaraamu cott ndayu doomu géwél bu jonguwul waxuma géwél ñi de waxuma géwél ñi waxuma géwél yi yëpp mais benn géwél bu jonguwul fële ci Fuuta jàngul jonguwul xamul iini aani bee sàcc ay milliards ba doy lu yomb ba dee yor ko di ko tas ci biir dëkk bi ne kooku mooy manipuler suñu ay élection ma xam ne sénégalais yi vous n'êtes pas digne du nom et vous ne méritez pas à diriger un pays loolu mooy dëgg ñun ñëpp sénégalais ñun ñëpp dinañu toog Farba Ngom Farba Ngom war ñu ak Macky Sall xat kaana ñun ñëpp ñu toog ñu ne pat lan moo xew senegal oh ah xam nga Farba Ngom moo buure Fuuta caa ay Serna Souleymane Baal ma ngay wëlbatiku ci bàmmeelam ñoom Cheikh Cheikh Omar Foutiyou Tall ñoo ngay wëlbatiku seen bàmmeel suñu maam yu baax ya lii la ñu mérité ci Sénégal ñun ñu toog ñu ne dañuy may ay Farba Ngom fu muy sàcceeg fi mu dul sàcce mais yéen nañu am fullawaay vous vous rendez compte de ce que vous Farba gis ngeen menace bu ndaw boobu ñu ko menacé Amérique est-ce que gis ngeen ko fi ren ñëwul parce que c'est un poltron vous voyez non Farba menace bu ndaw boobu ñu ko fi menacé woon moo Gaston ñu ne leen plainte Amérique Farba jaarul ci benn frontière Amérique Farba xalaatatul teg tànk ci Amérique c'est un arriviste yéen Farba xamu leen ne Farba il protège ses milliards Farba il a plus de deux cent milliards donc dina jël benn vingt milliards sànni ko ci mbedd mi pour protéger cent quatre vingt milliards yi mais sénégalais yi ñun ñoo koy ëpp fulla ëpp ko fayda ëpp ko jom mais loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg dama ne bu benn doomu aadama dama ne opposition bi je parle d'une opposition xam nga waxuma sama taalibe aka waaju njool aka borom kurus bu bees bi aka borom imitation aka petit traître waxuma kooku te damay joxewaat beneen alerte bàyyi leen xel ci candidat yi nee nañu bokk na ci bokk na ci ay plan wu Macky Sall jël bakkan parce que nee nañu benn candidat bu dee élection yi dañ koy reporté donc waa jooju jeune boobu di boot ay doomam di sol bàyyi laat bàyyi afro bi noonu di wër ci dëkk bi dose di dof doflu bàyyil xel ci sa bopp balaa ñuy jël sa bakkan bu ndaw bii te teel na ci yow jox nañ ma ay firnde ne yow moom saggan nga gars yi jël nañu sa sa bakkan ndax yow moom da nga mel ni cox buy dox ci biir dëkk rek sa bopp bi sax nekkul ci sa kaw épaule yi bàyyil xel Macky Sall sacrifié la jël sa bakkan bàyyil xel bu ma doon yow sax doo campagne toogal sa biir kër nelaw rek parce que mënoo am dara Sénégal yow amuloo juróomi nit yu lay votel ci biir Sénégal te boo dof dofloo Macky Sall dina soit dina la accidenteloo xam nga man du ma waxantu lu ma leen mas wax dégg nga ko booy bu sew bi bokk ci candidat euh, maanaam yi Macky Sall fabriqué bokk na ci nee na dafa bëgg a jël sa bakkan voilà info direct laa joxe nag Macky Sall nee na maanaam du Macky Sall moo koy boppam waaye dinaa la ne secret bii dox ci biir dëkk bi maanaam ña nga xam ne ñoom ñooy dem wut secret maanaam les renseignements généraux l'information qui circule mooy yow waaju booy bu sew bi dañoo bëgg a jël sa bakkan nee nañu tu es vulnérable yow maanaam amuloo doole amuloo xaalis tuuti xaalis bi nga am ñoom ñoo la ko jox dinañu dof dof lu sax amaana jox la kat kat bu mag nga dugg ci biir 4 x bi explosion am ci wala pono toj ci wala dara wala nga romb ci benn dëkk bal perdu gars yi dama lay wax rek ñu la pareel boo amul voiture blindée ñoom ñi la yónni pour nga campagne amuloo voiture blindée amuloo dara lu dëgër bàyyil sa bopp xel pour ma wax la ko rek nee nañu Macky Sall bokk na ci ay plan am pour jël ab bakkan pour renvoyer élection yi ba ma waa ji ne ma Boun Dionne aussi jege na leen lool te wergu yaramam demeewul noonu donc moom it am na yuñ ci xalaat ci Boun Dionne donc daal Macky Sall mi ngi xalaat Amadou Bazoum moom waxoon na ko bu yàgg ne mi ngi jéem a jël bakkanam ci lépp nu mu ko mënee nag dama leen di wax rek pour ngeen bàyyi xel yéen ñi ma lim les renseignements généraux m'ont donné des informations claires naka ngeen di xamee aussi les information la sont très claire mooy suba après ginnaaw bu ma defee samay investigation jéggal leen ma après bu ma leeralee lépp parce que mbirum banque la ak mbirum alal donc di ma du ma ci gaaw a addu waaye dinaa leen yëgal ne les milliardaires sénégalais sàcc yu mag yi ci Sénégal ñu ngi utiliser benn société de transformation d'or bu basé wu Dubaï pour blanchir ak génnee seen xaalis ci réew mi ci lu mu gën a gaaw donc ñu ngi rawale seen alal fi mu toll nii société boobu amul benn or bu fay jaar quelque or moo fay jaar waaye dañu créer société boobu pour blanchiment d'argent donc ñu ngi rawale seen xaalis milliardaire sénégalais yi ñu ngi rawale am naa ay photo j'ai des photos am na ay photo am ay information am na ay photo j'ai photo photos j'ai des voilà yu bari nag mënuma ko génne lépp waaye am naa ay photo am ay ojo que ay nit ñu ngi prete ay prête non ñu ngi rawalee seeni ay xaalis di leen génne senegal Sénégal élection yi dafa leer dès midi ñoom xam nañu loolu mais jeunes yi li américain yi di wax we will not take it for granted ñii ngeen gis ñuy bañ-bañ lu ni yëpp naan wala élection warul am nañu taxaw résister am na ci ñoo xam ne Macky Sall moo leen ni pour ñu jéem a indi ay bukaane waaw ñun dañuy refuser dañuy résister waaw indi leen résistance waaw élection bu mu am déedéet Sonko mooy borom doole bi nee na na élection am na élection am ku bëgg a ku bëgg faj sa bootul ci ginnaaw Bassirou Diomaye Faye boo bëggee boot sa waaye tey yow nga ne élection du am ci senegal nga ne wala da nga bëgg a faj sa mer nga dem bootu ci ginnaaw Daouda Ndiaye mais yow xam nga ne yow doo gagné ay élection yow xam nga ne tu ne vas pas gagner des élections yow mi toog ngane ne wala élection du am Sénégal wala bëgguma élection am wala nangam wala non non non léegi je vais prendre mes nga dem bootu ci ginnaaw Daouda Ndiaye xam nga ne yow mii bëgguloo ay élection ñu gagné ko ci Sénégal te doo yóbbaale kenn jeunesse bi seen leader yi bu ñu demee ñoom ñu bëgg a jaay seen ngor jeunesse sénégalaise bi laay waxal leader yi nga xam ne topp ngeen leen ndax Pastef parce que leader yu bari nag ci internet bi fii topp nañ leen Pastef fa tax voilà képp ku bëgg dem jaay ngoram waa Pastef bañ leen ba tëdd ci suuf jeunesse bu leen benn leader politique divertir naan leen waaw kaay leen ñu ànd ak diw bañ leen topp leen le projet c'est le projet qui est véridique et c'est le projet qui va dégager ces bandits là de ce loolu mooy dëgg ku fi juum nga ne wala man damay toog déglu leader leader bi ñëw na la waaw nañu ànd ak daw na njaay leader bi daf lay yóbbu ci ay diversion ci ay diversion la la yóbbu walla nañu ànd ak kii wala nañu ànd ak kele bàyyi leen xel ne ñoom ñu bari ñii ngeen di gis yëpp Macky Sall la ñu àndal quatre-vingt-dix pour cent des candidats dans cette élection qui vien en deux mille vingt-quatre c'est des candidats du système Macky Sall la ñu àndal seen làmmiñ la ñu yor rek di dose que yooxu ñii dale dama leen di défier tous les vrais candidats sortez et montrez votre vrai visage loo leen di tiit génn leen wane seen bopp génn leen ànd ak population bi génn leen setal seen der doo ko mës a dégg parce que c'est les candidats du système ñu bari ci ñoom muy ay ñoom diw ak ñoom diw xam ngeen leen duma tuddagum ay tur am na liste bi waaye ñoom ñu bari Macky Sall lañuy ñuy liggéeyal diversion ñenn ñi diversion ñenn ñi candidat système bi waaye lan moo leen indi ñu ñëw rek nelawal xelu nit ñi wala xajamal mbir mi jaxase amuñu juróomi nit yu leen topp bu kenn voteel ay dof dama leen ne opposition opposition la Bassirou jomay fay la Ousmane Sonko tànn am na ay opposants y'a Cheikh Tidiane Dièye y'a Déthié Fall y'a euh, suñu suñu euh, papa ji voilà y' a l' aussi fàtte naa tur ngeen jéggal ma voilà damay juum y' a des bari nañu yaa a des candidats mais quatre vingt dix pour cent des candidats c' est des candidats de Macky Sall est des candidats du man ku ci setal sa bopp rek dinaa leen ko wax donte man waa ji rek laa àndal gis ngeen mi ngi nii man kii laa àndal ça c' est mon candidat de débat j'ai pas de ma yàlla sama candidat mi ngi nii il voilà six ay neuf six bii mooy neuf bii six ay neuf Bassirou mooy Sonko Sonko mooy Bassirou voici mon candidat te yàlla ak yonante bi xam na ne Macky Sall xam na ne benn candidat rek ka ko mën a duma ci àddina mooy Bassirou Diomaye Faye lépp lu ñu bëgg a def fi mu toll nii mooy brouiller carte gi jaxase carte gi mélanger pour bu nit ñi yeewu pour bu nit ñi xam pour bu nit ñi mën a xeex pour bu nit ñi mën a nit ñi buñ leen man a daan au premier tour loolu rek mooy problème mu Macky Sall bi gën a mag gars yi dama bëgg a ñu dégloondoo lii dama bëgg a ngeen déglu lii mbokk yi na ngeen fanaane mbaa am ngeen jàmm yàlla na ngeen ko yendoo ah, système bi ba tey bàyyiwul système bi ba tey waaw grand Alioune Ndiaye yow tamit candidat bu baax nga mu ne Malick <laughs> Malick Gakou Malick yi may leen ma ngir yàlla yaa ngi ne di indil sama sama sama euh, bi gars yi di ko ñëw sàcc fii arrêtez avec arrêtez avec euh, les appels merci voilà jéggale wallahi barakaatu mbokk yi na ngeen mbaa am ngeen jàmm yàlla na ngeen ko yendoo Euh, système bi ba tey bàyyiwul système bi ba tey fanweeri fan ak ñaar moo dox suñu digganteeg élection présidentielle deux mille vingt quatre waaye système bi ba léegi mi ngi manœuvrer ngir xam nañ ne élection yi ñu jëm perte nañ ko mosuñoo pare pour dem ay élection mosuñoo waaj pour dem ay élection léegi ba tey ñu ngi manœuvrer pour ñoom continuer des ci réew mi dégg ngeen démb ab délégation boo xam ne am na ay candidat yuñ ne jàll nañ ak yuñ ne jàlluñ ànd dem seeti la xalif général de Mouride ngir mu dox seen diggante ak état bi su ko defee ñu lijjanti mbir yi. karoon sax ñu pousse élection waaye waaye nag ki ñuy jàng mooy araf yu ràgg yi waaw alif mooy araf yu ràgg yi mooy xaroful xilla xam naa ne wolof day wax ni ku wax feeñ. wal mburu tam tuddub dëkk ñoom waa système bi yëpp buñ boole woon seen candidat yëpp topp ci ginnaaw kenn xam nañ ne mënuñu gañ ay élection ci réew mi ndax sénégalais yi pare nañ te sénégalais yaa ngi noppi mer moo xam ne bu ñu yàlla dimbalee ba ñu àgg le vingt cinq février ñëpp danañ ko gisal seen bët te ñoom xam nañ ko te ñoo la ko gën a xam ndax ñoo ñu ëpp ay information ki renseignement jubluwaay bi nag mooy lan mooy lii d'abord buñ taxawee ci PDS PDS mësta réeroo ak Macky benn yoon lañ ñu naxoon du ñaar naxoon nañ ñu nag ndax 2019 man bokkoon naa ci ñi demoon Versailles fekki Abdoulaye Wade bokkoon naa ci ñi nga xam ne bi ma jullee fajar ba pare dellu si moo sama kër dama continuer Versailles ñun ñoo fa nekk ba neuf heures tegal ñu taal suñuy oto ak gunge góor gi mu dem Bourse aéroport Bourse jël fa jet privé pour ñëw Sénégal bokkoon nañ ci lu jiitu loolu ñu fekk ay waxtaan ak i reer ak i yu baree bari gis naa fan yi ku gedd ci télé yi bokkoon naa moom benn oto muy saaga Ousmane Sonko 2018 ba am ki àndaloon nag waaye kii nga nekkal de Pastef la bokk kon dara beesu fi waa PDS naka jëkk ñoog Macky Sall ñoo ànd Abdoulaye Wade dafa am France bi mu waxoon daf ne parti socialiste daf fi def 40 ans sooro jox libéraux yi libéraux yi tamit waruñu ñàkk fayda ba duñ fi def quarante ans moo tax moom bi mu defee douze ñun ñu fexe ba Macky Sall ñëw def douze muy vingt vingt quatre donc da leen dese nag ñu war di paasante nguur gi comme ni ko parti socialiste doon def mais malheureusement la woon woon ni na léegi nag ñaari objectif rek a fi des mooy forcé li nga xam ne depuis Ousmane Sonko comprendre que ni ñii bëgg ñu dem élection dañ ko bëgg a pour taal réew mi wala provoqué ko pour génn ci mbedd mi créé fi ay ëmbët waa Pastef wala les patriotes en général retiré wu bàyyi leen a xeex bi ñu nga am seen yéen wër ba sonn gisuñ kuñ xeexal léegi dañoo bëgg a xeex ci seen biir li ngeen dégg PDS naan ay gatsa gatsaat dañuy taxawaalu dañuy jéngu ay dóor la amul benn yoon fenn fu kenn mën a génne lenn benn interview bu Karim Wade toog directement di wax ak nit ñi ne leen damaa bëgg a bokk élection amul Karim mësta wax kenn daa bëgg a bokk élection Karim mësta posé candidat yii nu def yëpp ay dóor la maanaam même ba français carte mënu ko delloo parce que moom amu ko par acquisition daf ko am pour juddu mënu renoncer sa carte d'identité c'est faux la ñan ñoo ko def état français moo ko def ay dugg génn parce que ñoom ba léegi ci deal bi lañ bokk système bi moo dellu si. bëgg ñoo tardé mais mbokk yi focus. du ñu nangu à trente jour kenn du ñu toxalal ay élections. du nangu à trente jours kenn du fi ay manifestations yoo xam ne manifestation blanc la mooy baara yëgoo. ñee di sànni lacrymogène fee ñee di for di delloo ñoomu neen ñu day tàkk dara xewu fi ñoom ñoo daan wax bu kenn taal réew mi mag ñu baax a fi tëdd bu kenn taal réew dara xewu fi force restera à la ñoo ko daan wax bu ñu kenn damm depuis 2012 ak léegi amul benn combat bu PDS ma sa bokk benn législative yi passé dafa baar baara yóboo ak Macky Sall ñëw wax ruumandaat ba dugg ci biir yeewi askan wi am na am ci député dellu eh. PDS ak boppam dong mënta am juróomi député eh. waaye nag le généreux ku baax ki ku sell ki ci campénal moom ndeysaan xol bi daa baax daa yaatu daa bëgg lu baax moom daa am gëm-gëm daa am pas-pas moom nguur taxu koo jóg moom réew mi ko ñor kon képp ku taxaw ne réew mi nga bëgg mu la kaa ñu dem loolu tax ñoom ñëpp mu cër leen bañ far fër baagaloo nag soo ko invité tegal ko plat yi jeex au lieu mu xalaat ne suba am na day jéem a def lépp ci biir ba moo leen fërloo looloo dal Khalifa Sall taxaw Sénégal looloo dal waa PDS ñeneen ñuy lambar lambari te jógee bennoo pa bennoo bokki bàkkaar ñooyam kon dama ne caaxaan faaxe bokk yi nañ leen dem jëli carte électeur yi bokk yi waxoon naa ko sama audio bu mujj ku ne ci ñun yaay sonko sonko mooy jomaay donc yaay sonko yaay jomaay fexeel ba ki la gën a jege fexeel ba ngi waaye yow sa doom na jëli kartam sa soxna na jëli kartam sa mag na jëli kartam sa rakk na jëli kartam te teel a wata ji te teel a ñëw toog kenn du ñu fi toxalali élection alhamdulilah démb nag dégg naa xam général bi wax leen lu am solo ndax nee na moo jegoote ñëpp yoonam nekku ci te loolu la ñu waxoon comme yoonam nekku ci nag bu ne bu ñu génnee di dóorante xeer nag gaa ku ci am na ku am mantilato na ko diw te kaalawu toog këram bu kenn génn bàyyi leen ñoomu nen dañuy fo rek abonanta de voilà gis ngeen euh, maa naw waa gis nga waa ji li mu wax nii dama toog démb man man maa toog démb billaahi billaahi wallaahi may sama sama xel bi di tëgg tama quoi parce que temps yi ay kilifa PDS yu bare may woo waaw bu leen dal ci kaw PDS même famille bi la waaw xam ngeen élection ñëpp dañu soxla kenn ku ne dafa soxla opposition sama xel bi di tëgg tama may sëgg daal ma ne man ma ne maam jaara femme mii ma xam ak waa PDS yi ma xam ñii ay nandite la ñu ñii kenn mënu leen bouleversé gis nga ñii lépp lu ñuy def ñoom ñoo ci jiite ay diilkat lañu waxoon naa leen fi ay temps naa leen Karim a ngi waxtaan ak Macky Sall xam na ne Macky Sall du ko jox réew mi Macky Sall xam na ne du jox Karim réew mi mais ñu ngi dil ci yeneen fànn waxoon naa leen ko fi Karim Wade masta laaj man new ma leen woon Karim Wade du ñëw ana Karim ñëw na Sénégal waxoon naa leen du ñëw ñëpp mere ma waa PDS samay xarit mere ma man waxoon naa leen Karim Wade du teg tànk Sénégal cela je vous l'avais dit waxoon naa leen Karim Wade du ñëw gars yi dañu nekk ci dil dañu gëmloo ne Karim Wade moo teg candidature donc dañu refuser Karim Wade refuser Ousmane Sonko pour sénégalais yi accepter ko loolu la ñu def mais dañu teg deal loolu yëpp dafa bokk ci seen deal yi loolu deal la maanaam montage bu rafet nag xam nga Cheikh Bara Ndiaye dafa am lu mu wax xam nga iPhone ñett moo ci am dafa am iPhone faux bu Chine ak iPhone vrai bu Chine am iPhone Dubaï am iPhone États-Unis ci deal la ñu nekk gis nga li ñu def nii c'est le même système dañu nangu ànd ak Karim parce que déjà amoon na ay temps ñu leen di wax bi ngeen déggee cinq cent milliards yi sax bañ ko jéemee ci Dubaï amin ci Qatar xam nga lu taxoon pour ñu xool nuñ ko légitimer loolu yëpp moo tax ñu laal Qatar mais Qatar a ngi ci ay deal yu metti ak Sénégal ci pétrole Qatar ak yeneen réew yu bari ñu ngi ci ay deal yu métti ak Sénégal ci pétrole France wax noppi dañuy dil rek ci suñu kaw xel yi waaye waa ji mooy candidat bu baax bi xale PDS yi lay waxal sacrifié nañ leen bu yàgg xale PDS yi xale yi laay wax ñii voté te Aïda Sakho sax nag nga bokk ci sacrifié nañ leen bu yàgg ñi nekk ci kaw jël nañu xaalis bi lekk nañ ko yéen ñu ngi leen di utiliser militants yi ngeen di dóorante bopp ngeen di xeex di reyante am naa nag ay document te li ma doon bañ moom laay bañ a def ci élection yi génn leen waa PDS ngeen beddi dof yi te ngeen ànd ak parti bu baax bi xale yi laay waxal xale yi seen futur ngeen di xeexal sacrifié nañ leen bu yàgg ñii ci ay deal la ñuy dox c'est des dealers des bandits des truands des tappalekat billahi wallahi teg nañ leen deal bu yàgg ñoom dañ leen di utiliser yéen ngeen di yuxu PDS dafa am machine Karim Wade Karim Wade yéen ngeen yaakaar ne Karim Wade Macky dina dem ci débat maanaam ci dialogue jaloge Khalifa Sall ñëw dialogue ñoom ñëpp ñu dialogue ba d'accord ñuy dem ci ay élection Macky Sall di mën a xañ Karim Wade dil la dil dil dil bu mag léegi nag bëgg naa waa PDS ngeen xam ne nen bi toj na seen kanam yéen mag ñi laa wax waxuma xale yi parce que xale yi moom dangeen leen nax vous les a trompé da ngeen nu nax xale yi ay bandi ngeen yéen ñi nekk ci kaw keroog du pour dara ma yuuxu député turu député boobu te bari na ci ci seen biir ñoo xam ne ñoom ñëpp ay dealer lañu dañu deal dañuy deal te lépp li ñuy def nii dañu bëgg a nelawal suñu xel yi Karim Wade mastereero ak Macky Sall dañuy deal Karim wadd kenn xañu koo doon candidat dañuy deal te lépp ay deal la xool leen fi yàlla feeñalee deal bi déglu leen ma ndànk déglu leen ma bu baax xam nga kan moo ko résumé Pape Moussa Sow vidéo bi rëcc na ma ndax mi ngi ci biir téléphone bi may laaj ne xam nga ñoom ñu ne lu ñuy toppee Karim Wade nee nañu Karim Wade ba ngay renoncer ci sa déglu leen de ñu ne Karim Wade ba muy renoncer ci nationalité française am fekk na mu déposé candidature am ba pare léegi bu dee loolu mooy dëgg léegi Ousmane Sonko bañ koy daan daan définitive Mame Mbaye Niang bi ñuy wax ne moom la ñu mbubboo pour éliminer ko xanaa booba day fekk Ousmane Sonko déposé wul candidature am ba pare booba fekk na Ousmane Sonko déposé na candidature am ba pare waaye yàlla bu la bëggee feeñal gis nga booy deal deal bi du mës a set deal bi moo setut wa yàgg nañ leen ko wax nee nañu bàyyi leen diil ci suñu kaw bopp yi parce que toujours seen deal yi du set te saa yoo leen dilee da di ñëw ngeen feeñ dil ba ci Omar Sarr na tàmbalee ak Babacar Gaye keroo gis ngeen Babacar Gaye génn fi di jéem a waaw xam ngeen waaw mbiru man du ma ci wax lu bari waaye xam ngeen article nangam article nangam moo tax usmaan Sonko du mën a bokk xam ngeen loolu Babacar Gaye ko fi def le grand Babacar Gaye waaye dañuy diil dañu nekk ci ay dil te président Ousmane Sonko lii moo taxoon mun nañu nañu focus kenn yónniw ma de gars yi lii ça ne concerne que Ousmane Tounkara benn doomu aadama yónniw ma lépp lu may wax man la concerné ndax waa PDS yi ci boppam xam nañu loolu man maay benn nit déglu leen ma maay benn nit amelu ma kenn dara man amelu ma Pastef dara Pastef toppee ma dara mënalu ma dara mënumaa teree wax amul kenn ku nekk ci Pastef ku ma tere mën a teree wax man parce que jeune ne suis pas membre du PASTEF man PASTEF amul kenn ku ma teree wax amul PASTEF amul ku fa ku am maqaama pour tere ma wax amul fenn ci benn parti politique bu ci senegal lépp lu ma wax man la intéressé waaye dama leen di bëgg a wax ne waa PDS dañuy dil kenn wul Karim Wade doon candidat Karim Wade ak Macky Sall ñu ngi dil te bii yoon yàlla daf leen weer de moytu leen j'ai des documents xam nga li ngeen di bañ a def lu bari dafa am loo xam ne dama ko jàpp ci sama loxo te bomb la lépp ay tappale la ki dóor bàyyi leen dóor yi dóor yi dafa doy liggéey ngeen ci kaw senegal dóor ngeen a dóor a dóor a dóor a dóor ba sonn arrêté leen dóor yi nag yàq ngeen àdduna xale yi yàq aveniru xale yi ndax selfish ndax yéen ñi nekk ci kaw topp seen retraite rek ak seen bakkan yéen ak ñi nekk ci cour euh, conseiller constitutionnel bi yéen a yem képp kenn du génn nag di mo di combat xaw ma di xaw ma loo leen wax xaw ma résistance xaw ma amu leen fukki nit yoo leen mën a résister loo ndax boo leen ko mënoon gagné ay élection moo tax yen da ngeen xam ne sax ñoom dañoo gën a muus nag xam nga Karim Wade lu tax mu gën a muus sénégalais yëpp moom dafa respecté sondage bi moom gars yi bi ñu defee sondage moom li tax mu nangu deal bi dafa xam ne man mënta gagné ay élection ci Sénégal tant que Ousmane Sonko bakkanam baa ngi dund. tant que Ousmane Sonko Ousmane Sonko ba mu yee Sénégal ba léegi amul benn parti politique bu mën a te gagné Sénégal abatul Karim Wade xam na loolu parce que Karim il est éduqué highly educated maanaam éducation supérieure la am dafa jàng ba pare jàng am ay diplôme supérieur moom def na sondage bi comme ni ko ñëpp defee xam na ne Ousmane Sonko ak képp ku mu àndal il va gagner les élections au premier tour moom nag pour bañ a bi topp ko pour mu setal boppam mu nangu dil bi dil bi mooy lan ñu ànd ak Macky Sall mu njuuj njaajaat réew mi teg ko ci loxo Amadou Ba ba léegi waa PDS di pëtti pëtti foofu ñoom ñi ci kaw di jot seen xaalis maanaam Qatar di dil ak Sénégal ay milliards di dugg eh, eh, zircon bi di continuer pétrole bi di continuer naaw di dugg attendez avec tous ces banditismes nañu arrêté nañu arrêté arrêté leen caaxaan yi dafa doy gars yi maa ngi leen di ñaan ñu am fulla ak fayda ñu am taxawaay yéen sama xarit yi ma PDS bari naa fa xarit waaye nax nañ leen il vous ont trompé encore ñi nekk ñi ci kaw jël nañu avance bi lekk nañ ko bu yàgg di jaay jombe ñaaw ci dëkk bi di jaagar jaagare di jaay guerrière fekk lekk nañu xaalisu PDS ba bu yàgg lekk nañu seen wàll ci dil ba di dof-dof lu nag man nag bi ma ci mujjee dégg sax ndeysaan amay kilifa naan ah Ousmane man naa soxlaa ji Karim déedéet Ousmane bu soxla woon Karim Karim du ko jox dara Karim na génn dëggal boppam du Karim da mën a dëggal boppam il écrit nee na yéen ñëpp ngeen maintien fan yi dina leen wax donc Karim on t'attend Karim on tatan la grand écriture on attend donne tout à Ousmane on l'attend ñu ngi leen di xaar ah gars yi ba léegi de you can do right by yourself we know everything already xam nañu lépp donc comme xam nañu lépp dellu leen ginnaaw te ngeen xam ne banditisme bi dafa jeex ci Sénégal arrêtez de faire de deals sur nous on a fini sama sweatshirt bi nag dafa am lu nekk ci ginnaaw peut-être doo ko mën a gis ndax dama ko sol mais sinon it says très clearly bi ñu continuer dóor ba léegi <laughs> sama benn xarit ama yow xam naa ne xol bee sedd xam naa ne damay garaaw yow yaa garaaw eh, Mm-hmm. waaw je yëg naa ko voilà voilà j'ai compris j'ai compris voilà uh-huh. voilà donc aussi euh, sénégalais yi mënu maa dem te leeralu ma lii Macky Sall dafa convoqué recalé yi luy yoonu Macky Sall a convoqué ay recalé conseil constitutionnel mooy recalé wala Macky Sall mooy recalé Macky Sall a le les ale au palais de la République xam nga lan la bëgg a utiliser loolu pour ci reporter ay élection tant que reporter ay élection la Macky Sall nekk gars yi lu leen ma de Macky Sall tiit na juum nañu dugal nañu Diomaye te il a besoin de plus de temps dafa soxla plus de temps pour attaquer Diomaye tamit jéem a yàq casier judiciaire am jéem a yàq Ousmane Sonko yàq Diomaye yàq ñëpp ñu leen war ñoom comprendre ñu ba léegi ne yàlla noppi na Macky Sall ci tànku ay reporter ay élection lay dox opposition yi dem pale yëpp xam leen ne ñu ngi dil ak Macky Sall bàyyi leen loolu xel gars yi bàyyi leen xel ne bépp opposant bu dem ci pale ba ne day wuyu ji Macky Sall pour voilà dañ ko recalé nangam nangam mi ngi dil ak Macky Sall bàyyi leen loolu xel ñoom ñëpp nag gars yi dama leen di avertir yéen ñëpp yor naa seeni ay ojo gis nga ku fi génn jéem a teg benn deal ak Macky Sall dinañ la yàq ba faw xam nañu leen on vous connaît opposition sénégalaise bi ku dugg ci bureau Macky Sall nga ne yow da ngay dem deal ak moom dinañ la yàq ba faw ci ay deal lañu ne bàyyi leen loolu xel dama ne opposition sénégalaise bi nee nañu ñoom dañuy dem wuyu ji Macky Sall le recalés ana recalé ak wuyu ji Macky Sall kañ la ay recalé daan wuyu ji Macky Sall c'est ana recalé ana yoonu Macky Sall ci recalé conseiller constitutionnel mooy recalé wala Macky mooy recalé dégg naa ñee nañu Macky Sall dafa convoquer les recalés au palais de la République déglu leen lii Macky Sall convoqué des recalés des élections légales nee na au de la république xanaa Macky Sall mooy recalé Macky Sall mooy kale wala mooy recalé ku dem wuy ji Macky yaa ngi dil ak Macky Sall te billahi on fera face ku wuy ji Macky ci palais boobu nga ne yow dañ laa recalé da ngaa mer rek da ngaa nangam da ngay wuy ji Macky Sall nga xam ne ñun xam nañu ne yaa ngi dil et on fera face te di lii nag dañ koy leeral de benn benn benn benn dama bëgg ngeen dagg parti bii gars yi képp ku wuy ji Macky Sall ci palais bi suba muy mercredi muy jeudi muy ajuma yow yaa ngi teg dil xam nañu lépp nee nañu les recalés vont aller répondre à Macky Sall au palais de la République un président sortant toi tu es des élections c'est le conseil constitutionnel qui recale qu'est-ce que toi tu vas aller foutre au palais lan ngay wuti palais pour dem deal on vous attend wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu